asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 10 avril 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëgle kaay yi sunu làmb nag tey fa la nuy xëy doore mu mel ni ki nag xalifa ji day bu fekkonte ne danay yëgul combat Gris Bordeaux wala sësira guñ leen daa mel ni kon loola dañ na ndax nag tey moo xëy tey ci yëglikaay bi toog fa di wax yëglikaay bi wan ñu Gris wan ñu Bombardier xalifa nag ne fi mu nekk nii dey li leer ba leer lambi Gris ak Bombardier bu dee dafa bolekewu fa mu bolekewoo fenn la ca promoteur ba ko bëgg muy Pape Thialis Faye waaye fi mu nekk nii moom ñoom ci côté Fass moom pare nañu ngir def li nga xam ne nii mooy combat bu wala boog jël avance ba bëri ñoom daal joxe nañ seen kàddu xalifa ja li mu wax moom mu gudd mu gàtt moom ñoom Fass daal pare nañu kon Mbour ak Fass fi mu nekk nii daal pare nañu kon mbir ya Pape Thialis moo ca des suñu làmb xëy tey dinu ko wax guy gi moom mu ngi xëy di wax lii nga xam ne nii mooy ay waxam ci yëglikaay bi suñu làmb nee na li leer ba leer dey ñoom ñii nga xam ne ñoom ñooy ay adversaire am guy gi mu ngi leen di dànkaafu di wax lu metti la leen mën a xaar ci moom ku ci jëlub avance am waaye yemu ca nee na ñoom mbëri géejawaay yi moom jàpp leen ne kenn mënu leen a xàjjale ndax nag problème bi ñuy wax géejawaay bariwu fa nee na am na écrit yoo xam ne nii ñoo ñoppi jafe-jafe fuuf te lijjanti ko gars yi nag leen la ñu tàmm dañuy yor seen paan bu ne fàng toj fu ne ñu jël jël sa doom ndaa bu fet di ko lijjanti guy gi loolu la xëyee tey di ko wax keneen koo xam ne nii moom gis nañ ko ci yëglikaay bi wala ñeneen ñoo xam ne gis nañ leen ci yëglikaay bi mooy ambulance bu bu Thiès ak kii nga xam ne ni moom moo di Wouly 2 bu Bawal ñoom ñaar nag jàpp leen le treize bii la ñu war a bëre samedi ca stade Iba Mar Diop waaye daal ku nekk yaa ngay das say ngànnaay Mor Faram nag mu ngay wax ca ñoom ñaar ku ci ne Mor Faram daal la moo xam ne mooy côté stratégie moom jàpp na ne kii di ambulance moo këpp le kii nga xam ne moom moo di Wouly 2 sunu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne yëglikaay bi da caa ñëw mooy kii nga xam ne nii moom moo di Jax suñu lam ne ne jàpp leen 3 millions day moom la teg Iba maar Diop le premier mai Jax loolu def ci wàllum lamb simple lamb simple ja nag ka ko moom wala boog bu ko moomul am ca paar sunu lamb xëy di ko wax mooy rëg-rëg nee na ba mu ñib see ba tey de ñeenti tournoi bokk na ci ñeenti yëpp gàddu na ko yóbbaale ko yëglikaay bi calcul sax ba wax ñu xaalis ba mu ca jot a am maanaam deux millions cinq cent daal dugalagu na ko ci jibaam te saison ba tëjagul mu mel ni ki daal li leer ba leer day rëg-rëg lamb simple ji ah su ko moomul itam taala Ndiaye day am na ci baat sunu làmb nag moo xëy di ko wax man du samay wax waaye booy jaay Dakar sax Youssou nduur noon na faw nga am ci fulla boo ca bëggee jariñu boo ko deful mañam dina ko jeexal mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu baax di leen ziar di leen di ànd ak yéen seen revue de comme ni leen koy àndilee ci semaine bi yëpp tey di mercredi Babacar ñu ànd ak yow ci revue de bi ñu leen nuyu bu baax. Euh, Aïssa maa lay fay ah, di nuyu ñuy suivre ci Leewtoo TV comme ni nga ko waxee nag. tey mercredi la xam nga di nuyu ñëpp rek di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm et puis di ko saaxu ci ñoom di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm def ko si àddina bi mais rawatina réew mi ñu dëkkee muy Sénégal. Uh-huh. amin Babacar ñu dugg si li nga xam ne ni mooy jàngat bi ak euh, Khalifa Dia di manager ci Gris Bordeaux ne na nee na yëg nañ ni combat ñu ngi koy dox ba tey jii daal blocage bi si caalis la fii tey moom daal moo ñëwaat fii tey. ok ci côté négociation parce que bu yàggul dégg nañ ko ñu ne ñoom mu ne ñoom saisiraguñ leen mm-hmm. kon nag léegi kon la mu waxoon xëy na ci diggante bi dañ leen a saisir kon xëy na nañ ci caalis la dese affaire bi ah waaw kon loolu mooy que ni moom bu yëgul woon tamit léegi yëg na bu bokkul woon tamit boole nañ ka kon nag li am ba des kay mooy kon promoteur bi kon nag caalis ah gars yi daa am ne moom daal fi mu nekk nii moom la ñuy déglu waaw moom daal kon fi mu nii moo ci des ndax giri pare na comme ni ko waa këram waxee Bombardier noonu ñeneen ñi ca des noonu kon Thialis ñu koy ñaanal rek yàlla na yàlla def euh, mu mu mu mën ko tëgg parce que comme ay nit ñu soxla nañ ko te mbër yooyu tam soxla nañ ko ndax toog fi nar a def année balance moom ay sotu gënul ci ñoom parce que euh, il faut ñu bëree xam nga parce que ay sportif la bu ñu toogee pratique ñu li ñu war a def muy seen sport day metti ci ñoom et puis ci financièrement. xaalis mu néew mu bëri sax moo gën bañ a am dara. waaw tuut te teew njëgug Bambey sax di daa gën a wóor xam nga moom waaw lu mos mag moo gë maanaam lu mag mos moo gën lu mos mag mm-hmm. waaw xaw ma dégg nga am déet waaw. ah nga man nag sama olof moom mooy loolu demeewul noonu daal dañuy débrouiller rek ñu dem seeti ki nga xam ne ni Babacar mooy euh, guy gi fële ca Gambie la woon mu waxtaan ak euh, ki nga xam ne mooy Abdoulaye Dembélé waaye daal ma ngay artu ñi nga xam ne ñoo doon ay neen nañ ko moytu bu baax. waaw loolu de la def moom guy gi <laughs> ah, loolu nag mooy moom wane na boppam wax na ñi mu war a dajeel fi mu jëm ak li mu nar ak ñoom waaw loolu nag mooy lamba ah. mm. actuellement war na bëri bëgg na combat waaye yaakaar na adversaire yi ko war a jël ndax dinañ ko moytu yaakaaruma ko parce que ki jël sa avance Aïssatou dootu la moytu de wala bu lay moytu ci xel la lay moytoo pour nu mu lay moytoo moom ba am ndam ci sa kaw guy gi nag mbërël bi nga xam ne champion bu mag a mag la man yaakaaroon naa heure bii sax waroon na fekk mu am combat effectivement dafa war a bëre parce que tamit nag daaw dafa daan Siteu te Siteu nekkul n'importe quelle personne si lamb soo ko daanee ak guy gi boo xam ne demoon na ba ñu naan est-ce que mënati na kook mënatu ko mu ñëw prouver mu ngi ci lamb ba tey kon heure bi waroon na fekk moom combat bu yàgg a yàgg kon adversaire yi nga moom la war a bëreel mu ngi leen di dànkaafu xëy na adversaire yooyu tamit liñ la tontu du foro du ñàkk dinañ ko tontu ñoom <laughs> waa ñuy waajal combat le 13 bi diggante ambulance ki nga xam ne mooy Wouly 2 Père Mor Fadam moom ñëw na andi si analyse technique am nee na am na kii nga xam ne mooy ambulance moo gën a stratégie kii nga xam ne mooy Wouly maanaam moo moo gën mën a dérouler daal ay ay ay de combat voilà plan de combat quoi stratégie waaw moom ñu koy nuy suñu papa la di ko ziar di nuyu ancien gloire yëpp combat suñ ko waxee suñu xel day dem ci Assane Ndiaye borom bool production boobu moo ko tëgg samedi muy lamb yoo xam ne nii làmb ju la fële ca stade Iba Mar Diop loolu Père Mor Fadam wax nag xel la parce que comme li ñuy wax rek moom dafa bëre ba bàyyi bëre encadré ay mbër parce que tey yaa tudd gi léegi ñoom Pambay ak ñeneen ak ñeneen ñoom Sakajor ñëpp ci ay loxoom la ñu nekk kon bu ne moo ambulance moo gën a stratège yaakaar naa loolu war nañ ci bàyyi xel am wu tamit Père Mor loolu Père Mor loolu Père Mor Fadam wax war na lu mu si jàngat parce que am na wax yoo xam ne soo ko déggee dafa am lu mu war a jàngal bul jàpp sana waaj dafa la contrôler nangam de mais da lay da lay wan aw yoon parce que ambulance lu la waay mën a wax bëreekat la day bëree parce que li tax day bëree mooy saa yu ak moom bëri la gën a privilège sax ka xeex kon yaakaar naa loolu Mor Fadam wax wala suñu papa Mor Fadam lu jar a bàyyi xel la ki mu ko seqal tamit mbër la mi nga xam ne ñun ñu seetlu pour moom lu taxaw ci kanamam rek da koy effacé samedi moom dina nekk combat bu méttee métti ci ñoom ñaar ñëpp parce que ku ci ne am na foo bëgg a dem te ci ay ndam lañ jógee yaa ngi dégg ñoom ñaar ñëpp kii boo xoolee daaw daan Naaru Sogas ca Thiès moom ambulance Wouly 2 tamit bi mu fiy jógee mu ngi daan ki nga xam ne ni mooy mbërum caaroy moom turba la mujj a daan maa ngi kon noonu la fa demee ay sëtu waaw Babacar ñu dem si Garga Mbossé bi xam ne ni tamit euh, ci mois mois d' avril bi ñu nekk la war dajeek ki nga xam ne mooy euh, Moussa Ndoye mais sunu lam tam andi jàngat ci li koy xaar parce que nee na euh, fi mu toll nii war na andi premier victoire waa Parcelles biir parcelle war a tamit taxaw taxawaayu leader ci biir euh, dóor dóoraat ginnaaw bi nga xam magam bii di sos bàyyi na bëre. waaw loolu de ab yan la yan bu diis la gàddu parce que nag moom tey boo xoolee parcelle comme ni ñu ko jàngatee ren rek ah affaire ba neexagul seen côté waaw parce que bu Modou Lo ñàkkee yeneen xale yi amuñu komba am ci ñoo xam ne ñàkk nañu moom nag mu war a le 28 te nekk mbër bu mag parce que mbër yu mag yi ne parcelle Garga Mbossé da cee bokk kon loolu de ab yan la ci moom muy lu mu war a defaraat leneen li ci des mooy magam bi doon bu boo xam ne rek muy sos yoroon écrit bi nekkoon tête de file bi tey mu ne bàyyi na làmb Garga tamit war a gàddu loolu kon loolu moom yen bu diis la ah xaw ma nag dina ko yenn ko wala di nu koy mujje parce que li tax mooy la mu bëgg la Moussa Ndoye bëgg li Moussa Ndoye bëgg la bëgg waaye loo ci mën a dégg daal jàppal ne Garga am na sas waaw li mbëtt mi bëgg moom la bar bi bëgg ay satu waaw waaw wax nga dëgg waaw ah, kay dañuy dem si lutte simple bi daal di jeexee lay foofu kii nga xam mooy rëg-rëg ñu am ak moom ñu am si ah, parce que nee nañ bi mu dellu seeg léegi rëg-rëg bàyyiwul dara ci yoonam lépp la dépassé lépp la raafale maanaam bi mu dellu seeg léegi daal encaissé gum na 2 millions 500 ci li nga xam ne nii mooy wàllu xaalis. waaw ah, li olof yi wax ne dañ naan kaar macha allah parce que li tax mooy li ma wax rek sànq si daaneel bi moo ci nekk rëg-rëg moom nekk na mbër bi nga xam ne tey ci lutte simple wax dëgg Euh, dama koy wax sax gars yi de fois dañ may tooñ naan ma euh, da nga far fii ak na yàlla xam ne du far mais ay surtout fulla dafa baax fulla dafa baax parce que li muy def mënoo fa teg mënoo wax leneen lu bokkul ak li muy def parce que loolu ngay gis ci moom bi mu jógee États-Unis ak léegi ñëw ñeenti tournoi la participé jël ñeenti yëpp yaa ngi dégg am deux millions cinq cent comme ni ko sunu làmb waxee loolu nag li koy wane mooy wala li koy maye mooy pour man fulla bi quoi bokk na si bëgg li ngay def gëm ko te tamit li may wax tout le temps rek moom du nangu adversaire diriger ko combat yëpp xool ko mbappat yi muy bëre yëpp moom mooy jëlee d'avant ba bam lay daan même saa boo saa gisee muy daanu des fois euh, ci waaw ci ci biir action bi lañ koy daane mais pour mbër man gi parce que dama naan mbër yi bu ko bëggee daan dañ koy nangoo mën a vrai de maanaam li muy def nga jéem ko koo defee yow mais bu fekkee ci mëninam. waaye Papa nit pour nga daan ko da nga fekk si parce que maa ngi bi ko Franc doon daan fële euh, stade Demba Diop. final boobu suur boobu. Jaks ak Fallou Ndiaye ñoo ñoo tëggoon làmb jooju. bés boobu soo xoolee Franc ni mu ko def da koo bett. avant arbitre bii di arbitre dafa wàccee loxoom rek Franc daw jëli ko bëri ji ak moom wër ko ndomb daan ko. ku ko mënta def yooyu nag pour man pour nga daan ko dina jafe te li muy def na ko. te itam jox na ko àq te loolu dafa am solo ci liggéey Aysatu euh, na ko woykat ba waxee woon rek Dakar sa Aysatu boo koy jaay am ca fulla wala ma ñam ji jeexal ko voilà loolu moo am waaw Babacar <laughs> ñu jeexal ak ki nga xam ne ni mooy Jax Jax di mise 3 millions fële ca Iba Mar Diop le premier mai jour fête du travail mu fas yéene moom it défilé la ñëpp def benn 3 millions fële mu nekk mise bu am doole nag bi saison bi tijjee ba léegi. bien ñu koy nuyu di ko siyaar moom tamit vraiment li simple bi mu ngi ciy doxal bu baax a baax ndax mu ngi teg ay mise yu mag mbër di bëre kon ñoom promoteur simple yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Jax ah. le premier mai kon daal yaakaar naa ne 3 millions moom Aïssatou ah du fa de kon daal jàppal ne sa jom Iba Mar moom yàlla nañ ko fekkati tal ko mais le premier mai moom fête du travail dina jax dana yëngu ak jax waaw loolu moom am na. waaw incha allah dina jax dina yëngu loolu la ñuy xaar ci boobu journée nga xam ne mise bi am na solo trop Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy suivre seen revue de l'arène di ko di ñu safoo di ñu faale di ñu dooleel ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal euh, maam Talla ci caméra bi. Ousmane ci montage bi équipe bu Leewtoo TV bi yëpp ñoom biram ñoom Yàgg Ndey Kumba mu maane bàyyiwuñu kenn caalis ba ci wàcc ji ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen bége di tey eh, di souhaiter un joyeux anniversaire ki nga xam ne sama consoeur la muy eh, Awa Marone madame Ba te lay fête anniversaire am ñu koy ñaanal gudd fan wér gu yaram yàlla bàyyi ko ci kanamu njabootam yokk njaboot gi may ko sutura ak xéewal ju bëree bëri bëri lu mu bëgg daal eh, si xalam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal te lu mu gis yàlla lu mu ragal yàlla bu mu ko gis di nuyu ñëpp di bége ñëpp nga xam ne ñu ngi suivre Leewtoo TV waaye Italie duma leen fàtte ñoom Ousmane Diop te mu ne woon day safoo ki nga xam ne ni mooy Leewtoo TV di nuyu Amar yi ñoom Norey di nuyu képp koo xam ne mi ngi Italie Mado fàttewuñu la Sukayna Mami yéen ñëpp daal ñu leen nuyu baax di leen bége Babacar. am na solo Aïssa ah, am na solo kooku nga xam ne mooy Awa di suñu jigéen di suñu série sax laay wax série Pape Maguette ba di ko nuyu di ko ziar di leen ñaanal yàlla tamit comme fête euh, anniversaire ba muy fête daal yàlla na ko yàgg a fête Awa Maroon di borom baax vraiment di ko ñaanal di ñaanal xale yàlla yokk njaboot gi te barkeel ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne que euh, jigéenu sëykat moom li koy wax lenn la rek ñun mooy que ni kuy sëy sëyal te yàlla tax rek ndax boo ko defee rek yàlla suñu borom moom lépp loo def te moom kese mu tax soobee suñu borom doo ko récc mu gaaw mu yéex nag waaw ndax mbaax dong mu am solo leneen lu ci des moom amul ca poubelle ba lay mujj ji rek wala fa mu mujj ak yow du sori kon awa yàlla na sëy bi gën a dëgër sa diggante ak Pape njaboot gi am barke barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñi nga xam ne tamit dañuy a ñàkk gis nga gars yi dañuy commenter revue bi ku mel ni tuuti yaay koy nuyu depuis Espagne Abdou Diakhaté ay Fallou Ndiaye xam nga gars yi Babacar Sow sama turandoo ñoom ñëpp dañuy kii dañuy nekk xam nga dem aaroona dañuy kii daal Abdoulaye mbay waaw ak taalibe Baye ñas bi xam nga mam Modou Gueye taalibe sëñ Babacar sëñ Mbaye sëñ euh, Abdou di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre saal mu ngi ba pari du ñu fàtte kenn waaye tamit di nuyu ñi nga xam ne nii ñooy sama ay xaritu bopp ku mel ni mbay ngoom ak Abdou Aziz Ndiaye Daouda Mbaye ak Moussa ñooñu samay ami d'enfance lañu ba tey yàlla dogal na ñu ngi ànd ñoo defandoo lépp ca village ba ba Dakar kon maa ngi leen di nuyu Baye tamit ami d'enfance la mbokk la mu ngi ba Paris Baye Sall Dieng di nuyu ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne ko xol bu sedd yaram mu sedd yàlla na ko yàlla defal ñëpp barke yonente bi sallallahu alayhi